dañ ko am ko ne woon. daal bi xas yi dañ ko yàq ci réew mi rek mooy mi dañ ko yàq rek. Mm. mi dañ ko yàq rek mooy fu ñu ko yàqee te du fa yàqu. <laughs> naa ne yéen bu dee ñanaaw. Ah. jàngkat yi ñooy laafee déglu kër yi ñooy ñooy dong rek. jërëjëf yëpp la yàlla nañ ci fekk. ak léegi sëñ Tuubaa bi ñenn. di seq koog noonu. gërëm leen ci lool. jërëjëf la. ñaan ñaan ngi ma leen fekk leen. ngeen ma gaaw a jëf jooju jëriñ ca ñaar. yéen ñu ngi ko àndal yëpp.